asalaamaaleykum am yee fidèle internet yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ci site internet yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñëpp euh, tey nag ñu ngi nii toog ak euh, le bongo man est que moom sax bongo manati la <laughs> doonatul bongo man de mu toll nii ay way gën a jël am bongo la ñu jàkkaar lool mu seq war seq ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu am bongo ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay Abdou maa lay fay di tamit ak ziar kulluxum ñi nga xamante nii ñoo ngi nii tey bokk ak man émission bi nga xam ne yaakamte woon nañ ko pour toog wax ziar sénégalais yëpp àdduna wëndeel képp ak ku beeram je love. je love. am bongo. Hmm. man am artiste laa. non xam nga da ngaa commencé. Hmm. Sénégal yëpp ne am bongo. Hmm. bongo maa di ñëw dóor la dóor yu metti nga bàyyi bongo bi dem nekk ci leneen. waa xam nga tey jii mënumaa xalab bongo parce dafa fekk ne yàlla moo ko mooñaaleeg sama tur mhm. ma ñëw di artiste ñëw jël bongo nit ñeex ñëpp xam ma ci mhm. waaw kon mënumaa bañ bongo mais man am artiste laa def ma am artiste non mënumaa bàyyi bongo man mënuma sax nga cax ma sax dóor mais yàlla ma booleek am bongo bi waaw mhm. euh, lan moo waral euh, woote bi lan moo waral woote bi ah, woote bi may bëgg sénégalais yi àdduna wëngal képp ku te tamit euh, def benn son boo xam ne jaam na nangum dogal balaa wees balaa wees déglu nga son bi waa mais parle ma ci son bi ñu waxtaan ci son bi. li nga jot a dégg. bala ñuy waxtaan ci son bi dañuy waxtaan ci li nga mhm. xamante moo fi jot a jaar yëpp. ci sa mhm. carrière. Mhm. Euh, ba tey nga egg si fii. Euh, ñu gis euh, nga def benn vidéo boo xamante ni viral na trop àdduna wërngal këpp du ci wax. am bongo pourquoi mu def lii pourquoi mu def lii bi clip bi génnee. ñu ni est-ce que buzz jar na am bongo di wili pande boppam ci affaire yoo xamante ni maanaam rafetul ci ci ko xamante ni kilifa la. <laughs> ok loolu moom dinaa ci sawar tontu ndab pour nga def ci lekk il faut nga raxas ko loxo ba koy raxas mënut a bañ a takk parce que mu ngi koy raxas man dama jël euh, yëre sénégalais sol ko doon artiste soo ma laajee li waral loolu mooy maanaam am na ñu bëri ñoo xamante ne nii ñu ngi téye seen vidéo di leen di chantage li ma woy am na ñu koy dund bu nekkee ne c'est vrai que son get nga son bi am na ñuy dind loolu am na ñoo xam ne dañuy nekk seen soxna sax ba benn heure bi ka seen affaire na ko allo foo ne mu ne ko maa ngi bërëb sànga mu ne ñëw léegi fekk mu si day jóg parce que bëggul ayib ñaata sëy la fi yàq ñaata kër la fi tas soo demee da ngay toog nga analyser war nga déglu son bi bi ma ko sumay ay asaf expliqué dama di nga ko def man sax waruma koon def beneen euh, nit ci sama staff ñoo ko waroon def ñu jox ma ko ne ma yow yaa koy def parce que yow la ah li ma la wax nag ndab moom bu tilimee boo koy raxas yow moom pour nga def ci dara il faut mu set ñu génne bës bi waaw génne ko bi mu génnee quelque temps ñu génne suñu son su nekkee dégg nga son bi di nga xam ne lañ ca wax waxit la léegi fi mu nekk nii bu nit doon toog tey di wax sax di wax di waaraate di wax dara suñ ne nii gis ko fa lañ naan ko ñukk dem seete kay saaga. mais après les retombées parce que am bongo am na ay soxna am na njaboot tey bi video bi génnee peut-être sénégalais yi ñenn ñi dégg nga critique yi ñi saaga nañ la ñi wax nañ la wax bu ñaaw nekk nga ko dundee yow ak sa njaboot. anyway kan la ñu waxul wax ju ñaaw ren. kan la ñu xasul kan la ñu waxul wax ju ñaaw natt la danga koy teggi saa su ne sóoral ne nit a ngi pare pour yekk la lu mel ni ketele tax na ma gën a defaraat sama toogaay tax na it ma xam ne jaam dafa war a nangum dogal moo tax ma ne la jaam na nangum dogal balaa wees buur yàlla moo sànni asamaan mu tag ca kaw mu sàkk doomu aadama muy dox si suuf mu leeral jant feeñal weer kenn werantewul xoolal biddiw yi ñuy seen te ñoom buuxantewul lu tax mbindee fi ci suuf ñun bëggantewul hmm? ki naan danga rafet bu jëndee golom tuddeel ko ki lay signal daan bu gasee kàmb dugal la sa ki ngay tawar soxla dala koy xamante du la ko fajal soo dégloo son bi li nga xamante ni même bu affaire bi vulgaire it la ca teggu yeete la booy wax xale bu të ca la ko bëgg a wax dangay ngay njëkk a def benn affaire ñu mbamb la ndax dañoo tàmm kaa heure bi ñuy toog di kaa tubaab benn ci kaw weer bi ñun cas yi rek lañ dal. waaw mais aussi tamit tu n'es pas allé trop loin parce que kilifa nga nga génne maanaam nga def souverainement ñu filmer la nga juste pour buzz ba génne benn son est-ce que tamit loolu jar na ko. ñaata kilifa la fi seen sutura xaawee ko. mais bokkul. mais artiste nga artiste nga yow artiste nga jëlal ki mu dal nga def ko sa bopp wane un bon exemple parce que artiste nga am na ñu mu dal. am na ñu am li may wax nii am na ñoo xam ne ñu ngi leen di chantage ñu di koy dund. waaw. kan non man kenn du ma chantage parce que doo ma gis man doo ma gis man bu ma jiw jiwul maa ngi suma kër toog di leneen lu ma war a def aw ma milieu de fréquence boo duggee ma yónnu la koy seet diw ah nga wax ma soxla ma tëjaan sama nekk jàpp sama njàmm kon ragal ragalu ma chantage mais am na ñu mu dal. ñàkkul nga xam yow koo xamante nii am na koo xam ne mu ngi koy noot di ko sonal yeete la foofu la réew mi toll. non non non xel dafa dégg ndigal xoolal fi ma waxee fi ma génnee vidéo bi du du dañ mais ëllëgër si biir bu sama doom juddoo bañ na ko sa papa defoon na benn vidéo

bi ma ñëwee Dakar Ndiaye na salaamaaleykum na cëpp moo ma njëkk a jël vie sàll moo ne ko kii bu ko ba mu dem mu jël ma kon tey amaana àndaale naa sama qualité waaye lu bëri lu nekk ci man def na ko ci parce que Papis daf ma doon naan bul dem bul génn toogal fii mais nag am man dama yàkkamti woon dama yàkkamti woon parce que war naa génn aar ci yaram lay nekk day seey aar ci yaram lay nekk te day seey te bu sëgg yombee for jafe fi mu jotee nañ ko fa defee loolu moo taxoon ma ne pàpp man nag dama kii papa na ma toogal projet laa lay defal ma ne ko non damay dem mais jotewuñ dara. waaw tey jii bu ma toogoon ne yàcc na cëri ji ënn doo xam ba mu jaral la nga jël sa ay vidéo teg fi kon doo xam bu ma toogoon foofu di xaar suba bu yàggee sama nen dañuy caas damay gàddaam.

ku ma bëggul rek nitu guddi ga man dama baax dama ko xam maar yaasin may sa biige may sa biige maar day am ay programme yu di ma invité may dem keneen ku ma invité woon damay dem mais gisuma ku ma invité wax dëgg yàlla Sidi Diop musuma invité nag wax dëgg yàlla affaire waal dañ ma ci invité ma demaat xol nag def ndax ñun ñëpp duñ ay ñakk ay sénégalais lañ dara jaru fi ñaaw am ñu ngi lay nuyu d'abord dañuy ñëwaat ci vidéo bi parce que sa euh, a suscité beaucoup de débats euh, première question bi nga xamante ni moom laal bëgg posé mooy sa diggante ak sa soxna bi nga war a def vidéo bi ndax waxtaan ngeen ci wala boog bi mu ko gisee avant que euh, moom mu koy yëg nan la réagiré deuxième question bi mooy est-ce que du impacter sa carrière musicale par rapport au sponsor parce que am na sponsor yoo xamante ni peut-être ñu la taxé wala ñu tudd la ci yenn affaires yi sans pour ñu comprendre dañuy téye seen loxo ci sponsoring yi am na contrat yu signé woon mu yàqu wala est-ce que mën nga ñu leeral par rapport ak loolu aussi merci. ok premièrement damay ñëw ci suma soxna. sama soxna Aysa Faye waale buri faat ma fay saas bu yàgg ku ma ndaama ñaawut sama aaw buru këram boobu yaay Mamadou Mm, yabuma ko nag dëgg yàlla yabuma ko jigéen la xale la mais sama cousine la ndax papaam ak suma yaay ñoo bokk benn papa yabuma ko bi may ñoom fifitaa ñuy wax ma affaire bi dama ne leen non loolu du man ñu ne ma di nga ko def man ne leen non loolu du ko def booy est-ce que du ma yàqal sama der ñu ne ma non liggéey la man leen waa man dama am sama wàll mais suma jabar dafa am ak man wàll parce que dafa am doom ju góor doom ji tam daf ci am wàll est que doo laaj suma jabar sama jabar xaritam lañ mook Absa ñu oo Aysa wax moom Aysa ne leen ah bu dul daal loo xamante ne mun na ko andil problème mën na ko def man amul problème mu wax ma ko mën na ko ool suma yaay mu ool sama yaay ah day liggéey waaye bu mu doon wax joo xam ne rek ëllëg gis si biir mun na ko andil problème man leen dem leen ba suba ñu dem bu ñu xëyee bërsit ñëwaat waxaat ma ko àndaale seen filme ma ne baal ma defal leen ko ma defal leen ko mais fekk na sama jabar yëg ko ok ci affaire sponsorisé yi xel dafa dégg ndigal rek xel dafa dégg ndigal rek waaye man yàgg na Dakar Njaay ba maa ngi màgget kenn mësul a dégg na kawteef te kenn du ko dégg kawteef déedéet dama ko jubal ba mu jub bariwu wu sax fu nit di dem di ma gis man ma zéro image sponsor yi ñu aussi sponsor ñu may woo maa ngi am ay tournée yoo xam ne maa ngi ko pareeg sama staff ak ñooñu te du yàgg dara dinañ ma gis ñu ñaanal ma ñaanal ma te tamit bu nekkee ne affaire bi doon na loo xamante ni génn na mu doon wax ju ñaaw yoo xam ne dañ ma comprendre te xam ne sama liggéey la waaye sénégalais yéen man yéen a ma moom man yéen a ma moom wax dëgg yàlla fu ma mënta dem deru sénégalais laay yóbbu baal rek baal leen ma rek nag te xam ne damay liggéey maa ngi leen di baalu. samay xarit ngeen. waaw loolu nag ñooñu nag duma leen tontu moo tax ma ne sama noonu duma ko utal bës boo seetloo dama ne jamono fi mu toll duma ma gis péeri xëccoo dës sama noon bi dafa tardé man duma ko utal bës ñu ne ma lu tax ma ne damay sañse di ko romb di def lu baax di ko romb ànd ak ñu baax di ko romb xolam di jeex ma di ko romb kon moom duma ko utal bës ci gën si la njëkkee woon sunu borom gën si amoon nay noonu mais jëlal ki bañ teg ci ki nangu dox sa dox barke Seydina Muhammad billaahi wallaahi tallaahi Pape Diouf pour moom fu ma fekk war na yëkkati ci poosam xaalis jox ma du ma ne kenn yàlla ak lay nuyu te gisuma ko fu ma mënta fekk day làmb poosam jox ma daf ma sentir dafa ma bëgg ba ci keroog ci baakan dafa génn xaas bari jox ma waxtaan ak man dem naa soirée jabaram daf may bége Sidi Diop jóg naa benn jour dem akki ko dem soirée ci biir nit ñi mu ne kooku suma frère am la yëkkati xaalis jox ma man jotewuma kenn. doon wut euh, am waaw li ma ci bëggoon am moom am naa ko ndax xas nañ ma fu ne fayal jàmbur bi dem naa sax ba soo rawaale taxaw am ñaari xale yu may jëw naan kii de moo bët kii mën a def li muy def ba pare ne jadd xew ak sénégalais yi ma gëstu ko ñu xoolum ñu xeelu ma nga sama costume bi àttanatuma ko ma ñëw oo fi fi ne ko li ngeen ma defloo loo na de man nit ñi dañ ma bëgg de ah Fifi mu ne ma am ah, garaawul ma dem yéeg soirée nga xam ne sénégalais yi bañuñ dañ ma bëgg bañuñ ma fuul bi ñëpp yuuxu ma gën a fier tey jii boo amee problème ki lay rek moo lay defal boo amee problème ki la oo téléphone rek kooku la bëgg day am lu muy def ci yow ma sentir na lii bu doon dëgg kon man dina am lu bari lu wàññi ci man mais ma chaque jour ma dugal vidéo mais vidéo yi commentaire yi sama jabar day lii rek toj xaakataay sama yaay léeg-léeg mu ooma ah man de bës la waaye silib bi doo nga ma ci jaaxal de. Ah, mais moo jaaxal ñëpp ah. waaw c'est parce que. Mhm. boo seetloo dama sol sama tubéy ba mu yem ba fii. Mhm. sama lii rek nga gis ci sama caleçon. Mhm. ma sol ko. waaw l'essentiel que vidéo bi dama bëgg ñu waxtaan ci sama carrière mais vidéo bi maa ngi jéggalu Sénégal yi parce que mënuñoo topp naan vidéo bi vidéo bi dama jég ah non loolu dem dem màkk moom moo ma gën a jege ci defaat ko xalaatuma ko loolu bu dee liggéey la moom sama ménagère defloo ma ko non jar nañu tàggoo kon tu regrettes parce que liggéey la mais du ma tooñ tooñaat non mais euh, day metti parce que sénégalais sénégalais dalay teg stress ki ma xamaloon dara sax xas na ko taman leer na ma ne kii xamuma fayal jàmbur bi waaw mais nañ maytu tey di la xas te jote woon man dara te looloo fi am waaw waaw nit a bokk jikko gaynde lëndëm tis guddi dama ne nit moo bokk ji ko gaynde lëndëm turus ni guddi day rey ci bëccëgu ndara kam nit a gën a soxor bukki bilaay nit moo gën a soxor bu la jekkoo du la baal yow maa yow ñu nekk bége sa xol bég sama xol bég nga war a mun a jóg tiim maag vidéo maa yaa xam ma ne nungu jël ko dugal ko ci réseaux sociaux yi ba samay sët di sët di sët di ñëwaat dañ koy kii te ñi fi ñàkk ren rëpp yëpp yëpp mbokk leen ko gën a jege man a paaka bala ren di sa mbokk moo ko daa jox sa noonu moom mooy laay mais dañoo gis ni sa manager dugg si na ci ak eh, di jox li nga xamante ne moom mooy ay eh, sa manager génn di eh, waxalal ak boobu la di sa yow sa tey waa xam nga moom moom suma ménagère dafa xam ne am mi defloo naa ko lii mais àttanu ko man man gàcce rek laa ragal man bi may ñëw sama yaay daf demoon ba su moo toogee ci tele dégg lañu ñu ne yaa def dara muy lu bon wala ñu du lay wax loo xam ne leer na ma ne yaa ko def ci saa si laay dee parce que sa aar man rek maa ko nangu dama ci souffrir ba màgget ma ne ko doo ko dégg mu bi loolu amee ma oo Fifita ko suma yaay lii li ma waxoon mbaadu sama yaay sama loxo la nar a li ngeen ma defloo nii mu ne ma non non non suma yaay bu waxee loolu rek damay profité envoyé ko xaalis mbala ko kaf moom rey ak moom mu fàtte loolu waaw ñemewu ah gisoo Ousseyn Mbaye fu mu toog di ma waxal baax. Mm-hmm. barki démb dañ ko introsé dama ko seetaan suma karaw yaram bi di taxaw parce que dafa wax wax ju baax ba pare tagg ma nga xamante ne ñun bañantewul parce que aar bi du xuloo aar bi du xeex Ousmane Bongo man dama fa ñëw Yaasin ooma ne ma awal la ñuy xewal te dañoo bëgg a yóbbu teraanga ñun ak ñoom Madou dañoo bëggoon nga ñëw ànd ak ñun man ne ko amul benn problème fekk jibi moo ma booleeg ñoom maa ngi koy nuyu jibi Thiaw jibi Thiaw ma déplacé wu dem ànd ak ñoom fekk fa Ousmane Bongo mais bi ma dugg see man na leen du ma tëgg ndax su ma nawlee mu ngi tëgg duma ko dagg loolu mooy indi ruube du ma la fekk fi nga toog di soob di tëgg ba nit ñëpp taxaw ma war a ñëw ne bëreet man tam na tëgg ne dama lay suufe duma ko def bi ma ñëwee dama langaamu Ousmane Bongo mu def ba ne saay ma jóg def ñu bokk ñu ñëpp liggéey mu am ma am ndax aar bi du xuloo man jotewuma kenn billaahi xanaa ku ma bañ te loolu nag mënul ñàkk waaw ñu ngi waaj nag euh, album ñu nga waaj album parce que artiste buy dem te defoo album mooy picc muy naaw amoo tàgg ñu ngi waaj album bu neex boo xamante ni barki ñoom yonent bi ci lañuy déggoo nag taasu ci jazz. ah bon. <laughs> kon da ngaa <laughs> la ñuy dégloo taasu ci jazz maa ngi wàcc tamit ay soirée yoo xamante ni waaw kaay lekk sama xal. waaw te bu ko kenn jël day kaay lekk sa mbaxal rek ñu toog def soow <laughs> album bi ngay waaj da nga ci am ay artistes yi yoo ci yoo ci contacter pour liggéey ak ñoom wala. si surprise lay doon loolu surprise lay doon wàccal sa bët bi. <laughs> Eh, munoo fee def li ngay def ba pare ñëw naa wàccal sa bët bi de. fii ku caaful yaa ngi boxam. yow yow mosoo def dara <laughs> yow caaf nga ba nga juddoo ba tey mosoo def dara. man laa taqarabu non dama lay laaj. man laa taqarabu. ak sa àqu lay talaxa. la laa taqarabu. Hmm, fu muy buwee. <laughs> si xaraam laa <laughs> neex. mais ñu gis da nga def collaboration ak Fata euh, son bu neex boo xamante ni peut-être xaaruñu ko woon ci am bongo. waaw en même temps avant loolu maa ngi waaj tontu affaire parce que cas bi du jeex de cas bi dañ koy topp de dañuy wax ak topp cas yi de. Hmm? maa ngi son bi hmm. day am beneen son bu koy tontu muy topp kaa bi kaa leen ko rek ok fata son boobu noonu ndab rabtaa sooy ndaayam hmm. rabtaa sooy ndaayam waaw mu ne ko fata boo tëggee ri tambale ma rëba jikko bañ la fëjj leen ku rëll ba kër gi yëngu taasu pank taasu pank parce que taasooy ndayu rab mhm. li jàppoon sa maam jaam sët bi ree la ko def mhm. americain yi suñu maam yi di leen di noot te bu ñu defaan récréation ñu toog di euh, tëgg di feccandoo seen biir ñu inspiré wu ko dem Europe nag daal di koy segg seggaat ko seggaat ko génn ci rab muy rab taasooy ndayam mu ngi mel ni gerte gi ñuy ñëw jëndee ko si ñun fii demaat seen dëkk defaraat ko ba bu ñëwee jaay ñu ko mu gën a ñun lañ koy jëndee Euh, ma déggoon dañ la jàpp ci mystique ba nga dem fi Gambie dem sangu ji ba ñibbisiwaat est-ce que. Ah? man moom ku ma jéem a liggéey ñibbi laa bi siina. ah dem Gambie gi sangu ji nag amoon na. ku ma jéem a liggéey ñibbi laa bi xam nga lu tax. yaay gërëm na ma. baay gërëm na ma. samay mbokk gërëm nañ ma. te jotewu ma kenn. ku ma liggéey ñibbi laa bi siina mais dem nga fi Gambie sangu ji am loolu bu ko weddi. ah man ma am sama yoonu tukki bii war a dem tukki doxee sama soxla nga ne ma sëriñ la. Ah, yow xanaa jommeen nga wala nga soppali. ci mais mais ah, gàmbi ci mais gàmbi ci àll bi nga nekkoon doon sangoo ci ay xamb. ah waaw man na nekk neenum neen dayoorum réew. Ah, ok neenum neen du warum réew. kon nangu nga mën na nekk de. mën na nekk daal en tout cas. comme gis nga ne dem naa Gambie daal. Mhm. dem naa Gambie. Ah, waaw kon bisimilah. merci beaucoup kàddu gu mujj gi. waaw maa ngi béggee bëggee kulluhum waa Sénégal na wërngël képp am seen artiste ma ñëw nag fii ci restaurant Pape Torino mu teral nu def ba mu nice maa ngi bégg Sénégal yëpp. Mhm. waaw en bongo officiel sama YouTube dem leen fa di ma cons dem leen def zene yi may jéggaluwaat Sénégalais yi je love I love. Proxima fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw